ñu ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam dal leen ak jàmm bu ñu sukkandikoo si xibaaru RFM yi Macoumba Beye jàllale ko ñuy wax que ne nag état bu Sénégal dafa def mandat d'arrêt international maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew di def ay jëf yoo xam ne nag wala di wax ay kàddu yoo xam ne mën naa tax ba Sénégal nekk si aw ay ñooñu ñëpp nag dañuy leen di jëli fële sa bitim réew. mu nekk lu doy waar est-ce que loolu nag dina mën a àntu am déet vidéo tey bi nag si loolu la ñuy nekkul lu bees am nañu njëkk yéen ci defal ah est-ce que dañuy politique rek man personnellement jàpp ne dañuy politique ah lu ñu nekk bitim réew ñooñu duñ Sénégal nag waaw ah, loolu tamit il faut ñu xam ko seen nekkul réew moo xam ne tey ministre de la day wax oote procureur fay jàpp la déedéet. réew yooyu dafa am na muy doxee réew yooyu bala ñu laa jébbal dañ lay àtte maanaam justice bu nekk foofu dalay àtte justice bu nekk foofu nag nag dalay àtte euh, est-ce que yow la nga leen jiiñ par exemple bu fekkee koo xam ne dafa am këyitu France wala këyitu américain ñoom loolu la leen di wax ndax déglu la seen réew nag Amadou ah euh, euh, loolu mooy wax bi maanaam la ngay wax na ngeen ñoo ko wax boo dajalee say say say say preuve yëpp teg ndax loolu déglu la ñoom dëkk yi yaakaar naa seetaan nañ fi ñoom naaj Macron dóor ko mbaj te ñu ana Casambadio ndax dañu ko gis ci café Donald Trump yaakaar naa lu ne lañ koy def dañuy jël ay experts lu ne am ne ñooñu duñu ay kilif waaw ah, kon loolu wax ji njëkk man jàpp naa dañuy politique rek waaw parce que am na ci loo xam ne tey euh, bu fekkee da ngaa am kayitu dëkk ba moom wax dëgg yàlla mënoo faa bougé mais kenn du la fa jëlee waaw lenn nag mën na nekk comme comme lañ defoon Assane Diouf nga boole koog immigration immigration ñëw jàpp ko ñëw andi ko waaw loolu mën na nekk waaw mais jàpp naa ne dañuy politique rek waaw parce que la ñuy jàpp ne exemple tey nit dafa def naan loolu euh, am preuve ya bu fekkee li ñuy wax ce n'est que des paroles day ànd ak ay preuve day ànd ak ay acte par exemple bu fekkee man dañ ma bëgg a yóbbu dans un groupe man bu fekkee da nga ne man si groupe terroriste laa bokk mais da nga andi ay preuve rek yaa xëy si ku ne da ngay wax noonu rek benn tunkara buy wax ay waxam wax di wàcc man ñuy wax dëgg yàlla du ma ko déglu pour lan ñu koy jox benn importance bi wala du ma ko déglu ah kon lan lay a wax bu lay jaam loolu maanaam yan preuve nga koy andi da ngay andi ay preuve yu fekkee yow da nga ne da ngaa mais yaa xëy xanaa di nga andi ay preuve di nga andi ñu muy linkal ñu muy waxal waaw ah, wala ñoo xam ne exemple day jokkal ak ñoom wala benn matière wala ay preuve palpable yu mel ay waxi kese. waaw kon dafa am loo xam ne ay waxi kese la pour lan ñu koy jox importance waaw parce que dañoo nekk réew mi demul réew mi demul moo tax ñu koy jox importance mais bëri na ci ñoo xam ne li ñu waroon am dafa am ñu naan communication de l' état doomu aadama état dañ koo andi pour yar population pour mu jàngal population boo jàngalee sa population man ñooñu ñuy wax ñëpp man duma leen déglu man Alane Ndiaye parce que da ngaa war a jàngal seen population bañ mën a seetaan perte genre yu mel noonu ëllëg bu ñu la andi benn problème. parce que nit ki bu xàmmee ràññee du ko déglu àdduna lu simple la mënuñoo tëb ay fenêtre mënuñoo naaw da ngay jaar fi àdduna bi jaar parce que yooyu ñuy wax yëpp ay Akhenaton ak ay boo demoon ci France élage nii moo la gën a toog anti système ña nga fa junni anti système toog lu ne la ñuy wax mais su nekk de parole bu déggee ay acte nag yuñ mën a boole boobaa justice bi mën nañu ne téye nga fii nga lay wax ay waxi kese la maanaam boo demee nañ fa gis français yu gën a yegg fop waaw yoo xam ne ay théorie de complot mu ne ñu andi ko daal di teg boo xam ne sax ñu bokk ci parti politique ñoo teg kon ce n'est que des loolu yàgg nañ ko wax dañuy politique rek duñ fi andi kenn ku amul kii nag mën nga koo gàddu andi ku amul kii am na foo ko mën a jaar angle yoo ko doon jaar ba mën koo boole euh, immigration immigration bu la jàppee da lay par exemple tay ni mako mala mën a expliquer amna ben égyptien jamono ñuy doog no ital ben xalé xale la sauvé woon xale bu dal la ci kanam mu sobe ko mais dañ ko reguler ak ci buñ def bravoure amna am na dëkk yu mu doon dañ koy jox passeport sax mais mom dafa tëmbik dëkk bo xamne ak ci bi rafet na mais fess na manam yaa ngi ci loxoy yoon loxoy yoon nak dafa am ñoo xamne ne xol dafa am ngey kay ak déet waaye mu di kayit dañ lay delloo kon jàpp naa ne ay politique la képp la pour wane am na liggéey bu ñu defal la nangam mais ñoom ñoo ñoo la gën a xam ne mënuñ fi kenn parce que pour ñu andi nit comme ni ma lu simple la dañ koy acte ci dëkk ba nekk juge moo koy acte ci dëkk ba nekk ba reconnaître yow fee yi nga xam ne mën nga ko jiw parce que buñ fàttali ne ñun suñu réew yi dañoo reconnaître ay état de droit loolu ñun dañ koy fàtte gouvernement moo la gën a xam. Sénégal nekkul dëkk yu reconnaître état de droit loolu il ko dëkk nag bu ñu la reconnaître surtout nag dëkk bu mel ne Amérique waaw Amérique lu fi waay mënti wax ñoom dañoo am ay loi yoo xam ne dafa teg maanaam juge américain moom moo kat nangam ak nangam waaw maanaam ñoom nee na li ñu mën a toppee rek mooy amul kéet. wala beneen dund boo xam ne def nañ ko ci biir dëkk boobu lu jar na nangu seeni kayit loolu tamit mën na ne maanaam mën nga xool ba xam ñoom def nañ dund yoo xam ne lu jar na nangu seen seen dëkk la ci loolu nga procédure ñu engagé procédure ñoom li nga ciy dolli nag comme que état la na ñoom am na ñuy pexe xëy na ñoom am na ñuy pexe ñu ñu lal mais en tout cas waaw ñuy tubaab moom noonu lay demee du Sénégal foofu waaye du tubaab moom dañ ñoom ñoo lay àtte buñ la àttee ñoom ñooy def yow ba xam fii dañ koy génne leen wala duñ ko génne leen te tamit da am am layalkat ku la mën a layal taxaw wax beneen bi tamit état Sénégal xëy na am na pexe mais nag buñ fàtte ne état la boo xam ne dernier temps yi daa def ay ndomb yu bari ndomb yooyu nag ki nga xam ne moom day lay day indi preuve yooyu maanaam day andi cinquante personnes yi ñu rey day indi preuve yooyu dajale moom ñëw taxaw lay ne dëkk bi kat fii ndax mën ngeen ma faa yóbbu fii du état maanaam am ay layam jàpp daal nag ku ko def tamit ah jiw ba nag foofu nag ah, dina ko bàyyi en compte nag wax dëgg yàlla. merci beaucoup El Hadj euh, gën ngaa xóotal sax waaw parce que xam nga euh, il faut ñoom ñu comprendre ne euh, ña xam ne mën na sàng dafa am fu ñu ko teg avant maanaam exposé wu loolu tamit. waaw mais man pour man tamit état bi xam na li ñuy wax yëpp état man day politique rek nag waaw day politique dafa am benn masse population bu mu bëgg a euh, maanaam pour wane ne intouchable amul affaire yu demee noonu waaw tamit c'est normal dans un pays pour wane ne mais nag daf war a def ci diplomatie ba wala mu ëllëg bal bi daje daanu ci côté waaw parce tubaab bi moom loo fa munti wax juge moo lay atte Euh, jébbal la exemple ñoo leen leen war a jébbal waaw léegi euh, fan ngay jëlee ay preuve tangible yuy wane ne kii ni kat lii lii dañ ko doon jiñ wala nangam waaw parce que la ñuy wax foofu ñooñu di wax noonu yëpp wax dëgg yàlla jàpp naa ne hélas bëri na français yoo xam ne egguñ leen ci wex te ña nga biir France biir taxawaal ñu di invité sax ci ay télé waaw loolu tamit il faut ñu comprendre waaw ah, léegi xam nga bu fekkee nag planification projet de de de euh, terroriste wala yu demee noonu loolu projet de terroriste mais man wax dëgg yàlla nag franchement nag gëw ma ne ñooñu man pour man ay opportuniste rek occasion la Souleymane Jules Diop la mu amoon am na ñu ko bëgg a am man loolu laa jàpp tout simplement mën naa bañ a raison nag jàpp ma ne am nañ ci ay projet planification nag ay wax lañ fa am la wax yëpp ay wax la ah, Euh, maanaam diw day planifier nangam il faut tamit ban la àndal est-ce diw Sénégal terroriste ndax ay terroriste lañ ay margaat lañ